bismillahi irrahmani irrahim hadiyatu sayidati maryaama bu sajaratuley dikk nan di way ak sant dikk nan tey di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna bégal nga àddina wóor na yaa nu jox Seyxi Bamba jaarama jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaaram soxna baaleeg maam bu zambaañu le jaara am nga tawfeex ku gën fa balu tudde jaara turandoo jaara ajjanaay wàccuwaayam koo mën a doon santal ci mbaax gi jaaram bu sa baale manoon ci kër man ci jaamoom fu mu jaar ni ñey mu roy soxna jaara gëm na yàlla yónneen ba xam Seyxi Bamba xam na boppam far mu doon soxna jaara daana jëf daana waar jigéen ña ca kër daana jàng ak liggéey ba doon soxna jaara xam-xamam wér na alxuraan xam na jaara am ca daan bind cër la woon cay jaara am na sañ-sañ bu ci buur bii di yàlla mu ko ñaan daal mu def ko ngir moo di jaara Cheikh Abdoul waxam jaake yéeme nett leen ngir nu dolli waaru ci jaara noonu lislaam ba ñuy fexeel Seyxi Bamba def ko ci kam ngir tuxal doomi jaara malaayika teew ngir dañoo sopp Bamba ne dañuy jiima dimbali doomi jaara maam bu safar fa deew ba génne fa xaadim naa ko seyqil xadim wéyal man la jaara maam bu safar fa teew ba génne fa xaadim naa ko seyqil xadim wéyal man la jaara di am ndam lu ba del si ci réew dekkalaat sunna rey bi daa doomi jaara ku fi am seyxi bamba am soxna jaara war a jaara ma yow soxna jaara noo ngi ñaan barke ak ngërëm ak i fan wér ma defal nu ko jaara may nu gàddal nu jëf ngir Seyxi Bamba may nu wërsëg nu jogo kay doomi jaara noo ngi yalwaan noo ngi sakko noo may nu daal man nga koo ay soxna jaara fu fi waayi tollu neel amiin ngir mu baawaan ngir nu am ngir nu jëf ba sant fi jaaray jërëjëf rabbuna jaraw lak baali hakada cheikhina alxadim doomi jaara e ñaat na ngën gi muxsinaat ma way sangu kuy moominaat gën nga te gën du la gënaat jaaratullaahi maaliki feeñaat na gën gi moom ma way sangu kuy gën nga te gën du la sëriñ bu mag ba magama te demoon ngir dëburu ki yàlla na la yàlla yokku tax nga ba ñii di say mbokku tey ñëpp fa bëgg a bokk tawel nga mbusoo beeg mbàkke raayay nga ne yaa ko sempi jamono mosulaa soppi def nga ma sa noppi يوم نور سالكي كسوب جنفة الملك سنير دومي جندك رضوان الله عليك يوم نور سالكي كسوب جنفة الملك سنير دومي جندك رضوان الله عليك ba ñu déngee islaam laay sa dooma jikki ko tekki sa doom rek mooy ki jël gaal dem ba way jala sagal nix ma yaa saayibal fulki sa doom rek mooy ki jël gaal dem ba géej moo jara way jara ma yaa saahibal fulki man jaara amuloo moroom yaa dëkk ak yàlla sa boroom yaakaari jaam ñee bis ba jaam ñépp di dekki man jaara amuloo moroom yaa dëkk ak yàlla yaakaari jaam ñee di sa doom bis fa jaam ñëpp di lekki man jaayu nga tedda bee ëppee sulaat taalibe say maye laawaan da njabee say sëtëy sangi waa mbokki na la yàlla dolli ay rabbul salam jëf ko ko leen jaaratulaay maaliki na la yàlla dolli ay leer yu gën a leer jant ak weer rabbul salam jëf ko ko leen jaaratulaay maaliki na la yàlla dolli ay leer sa doom jëf ba nga xamante ni mooy initiateur bi waaw at bu jot mu di ko def nag Mbàkke Bàll la waaw maam euh, biñ njëkkee jàpp màggal gi sax laata sëñ Sidi Moxtaar di noppalu la defaroon cere yu bëree bëri yaakaar naa war naa am ay nangami tonn da nga defaroon nañ ko ci cere indi ko sëñ bi ngir euh, daara maam jaara daara maam jaara ji buñ doxalee bis bi it da nga yàlla dugal kon mu moo tax moo mbala mi nekkaat tey jii waaw di sant nag ak gërëm waa Kaolack gépp da nga seen liggéey seen pas-pas waaw ñu ànd ak euh, gën a ànd ak yar ak teggin gën a ànd ak warma waaw te xam ne lii moom dégg fi waay def rek dégg nga sama daan la ko fay waaw lii sëñ Fallou waxoon rek ne maam Porokhane ku fi toog ab diir dégg nga suñu tubaab fekk la fi da nga koo fekk nit ku baax nga di ko baleel di ko buubal dafa am solo waaw bu ñu danaa gis ku wéré di waaye du tee da nga xool maam lii dong lañ ko lañ koy ñaanalee waaw lañ koy lañ koy fajee dañ day nekk ci kër sëñ bi rek di bale di buub di raxas da nga moom lañ koy fajee waaw ba kooku mujj àllaat ak sagom da euh, bokkaat ci ci euh, bi waaw kon li may soññu ni jaar nga xam ne lii lu baax la bàyyi sa liggéey bàyyi sa kër bàyyi sa yitte yëpp da nga ñëw di baleel sëñ Tuubaa di baleel maam jaara loolu rafet na njott doona euh, sëkk yaakaar kon ñu ngi ñaanal mbooleem ku fi teew ci barke sox jaar yàlla na ñëpp ci jógee kaw day mandargaal ne nit yi pas-pas ci bis xam nga li ma lay wax moom euh, dafa amul wuute Tijaan ak Xaadir Laayeen ñëpp dañoo am doon benn lu sax dégg nga ëpp suñu ëpp moom laay waaye gis nga su xewee nii lañ nii lañ ñoom ñëpp dégg nga benn jàpp ci baax taxaw liggéey baax a baax a baax ah, kon nag dañuy ñaanal Kaolack gépp la ñu mas ñaan rek yàlla gën ñoo jiboolee ñu gën a ànd benn xam na lu baax li ñu yàlla may maam Baye ñasang fa maam Ablaye ñasang fa dégg nga maam euh, waa ka sëñ Amidou kan ñang fa waa ka sëñ Ousmane kan ñang fa dégg nga waa ka sëñ Bissir Mbacke fa kon Touba mën naa na kër diine yi ay am Sénégal yëpp dégg nga seen mboole seen dégg nga euh, euh, dañoo nekk Kaolack waaw kon yàlla ñu yàlla gën a dimbale gën ñu defal tawfeex ba li ñu yaakaar ko yow ñu jëf ko ci mu ne جبريل ثم بميكائيل وساهم النفخ إسرافيل خادم أرواح الخلائق عزرائيل وبالصحابة ثم الأولياء معا والعاملين من الأخبار وبالصديق وبالفاروق ثم بزيد نورين ثم أبي الستين يا الله ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di sant Serigne tubaab bu baax ci liggéey bi nga xam ne taw féexalee nu ko ñu di ko di ko def kenn ku ne xam na njariñ li nga xam ne moom la liggéey bi am solo ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha muy liggéey bu mu am cër di liggéey boo xam ne waxtu wu nekk da koy bàyyi xel loolu taxit ni ngeen ko gisee mbokki taalibe yi jóge fenn fu nekk ci gox yi nekk biir Kaolack ak li ko wër ngir teew tey ci fii ci Poroxaan ngir yeesal dëkk bi nga xam ne màggal gi fukki fan ak ñaar rek moo ci des jàpp fukki fan ak benn nga gis tey mbooloo mu fenn fu nekk nit ñi jóge fa teewee ci bis bi muy bis boo xam ne am na solo lool ndax kenn ku ne xam na set moom maanaam martaba bi nga xam ne moom la am ci ci diine euh, looloo waral yi tamit saa su bis bi jegesee bokki taalibe yi bëgg fas yéene ñëw yeesal dëkk bi ba nga xam ne incha allah su ñu fi jógee ko kenn ku nekk fu mu fu mu egsi rek dana fa mën a toog ngir dëkk bi ni mu war a mel incha allah danañ ko mel te mbooloo mi nga xam ne ñoo fi daje tey lu ñu mënul def rek moo amul loolu tax gis nga bi ñu yegg seeg léegi yàggul waaye gis nga dox bi nga xam ne liggéey bi mi ngi koy mu ngi koy dox mun yaakaar ne incha allah balaa 16h jàpp 17h mel mbalit dootu dootu dootu taxawaalu fii ci biir Porokhane incha allah. waaw dañuy tàmbalee booy dugg Poroxaan ñeenti kilomètres laa da nga egsi muy kër Serigne Cheikh Saliou ndax xam ngeen dëkk bu nekk jaaruwaay ba nit ki di jaar di yegsi ci dëkk bi dafa am solo lool ngir wane dëkk ba nu mel te ku wax Poroxaan war a wax set ndax soxna jaara soxna la woon te ku wax soxna wax bale wax buub te loolu kenn ku nekk ku jàng taarix bu soxna si xam nga ne amoon na ci solo lool waaye ñu tàmbalee ko yi tamit ci kër rakki sëriñ bi muy sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou moo tax saa su ñu yegsee këram la ñuy tàmbalee bale ji incha allahu wuti nag jumaa ja 2008 ginnaaw bu fi Cheikh Mouhamadoul Moustapha Bachir bàyyi ko ci la ñu sëriñ bi jox ndigalul ñuy bale si Poroxaan boobaak léegi nekk na fukki at ñoo ngi ci 2018 ñu nga ko leeree léegi Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla tawféex la lu mu nekk huitième xalif général des Mourides loolu day mel nii euh, tawféex la ndax euh, euh, faalu dafa am solo ci ci diine te kenn ku ne xam na taxawaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha ci ci lislaam kenn ku ne xam na taxawaayam ci yoonu murit kon su yàlla dogalee muy borom pas-pas bu rëy ba mu doonoon doon borom liggéey bu rëy ba mu doonoon doon borom jëf ju rëy ja mu doonoon ci yoon ba tey yàlla def muy yoonu mu nekk mu nekk xalifa général des mourides loolu gis nga tey jii sëñ Babacar kenn ku nekk oto yaa ngi nii ba léegi di ñëw fenn fu nekk nit ñi jóge fa mbooloo mu bari ngir taxawu liggéey bi di liggéey boo xam ne liggéey bu yàlla barkeel la ndax sëriñ Saalix Mbàkke mu baax ma daana wax ne euh, liggéey bu yàlla nangu jërul laajte xoolal xoolal màgg ga rek ndax loo xam ne ci ñaari biis nga ko tàmbale woon ren nga dem ba biis amatul biir Kaolack oto yi ndaw amatul ngir mbooloo mi bari bari gu ñu bari loola féex la kon liggéey bi daal suñu la mënee wax mooy am na ak yokkute bu baax euh, fukki at yi ñu ko liggéey tamit at mu jot lu mat juróomi biis jàpp lu mat ñetti téeméeri jàpp juróomi téeméeri danañ dolli ci mu jot ba fi mu ne nii bu ñu doon xayma nit ñi dinañ ko xayma ci ñaari junni ak nangam ëpp nañu ko ndax li ñu bindoon démb rek motoon na 30 bis te gis nga li fi ñëw ci ay njagañaay ni ñu toll kon loolu day wane liggéey bi mu ngi màgg waaye ñuy sant yàlla bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy xalifa général des mourides suñu borom kantanal ko dëbb ko kàttan ba li mu bëgg a liggéey lépp mu man ko ndax am na yéene yi ci am na yéene yi liggéey am na yéene yi defar waaye loolu nag li ko li ko ci mën a gën a dimbale rek mooy wér ak ak ak kattan ñoo ngi leen di sant nag bu baax di sant presse bi ndax tey fu liggéey bi yegg rek ginnaaw bëggug suñu borom mooy presse bi moo ko fa yeggale ndax ñoom ñooy jàllale xibaar yi ci nit ñi di ko yëg jamono bu nekk. kon ñoo ngi leen di sant di beral ak cant Alfayda di ko beral Lamp Fall TV eh, ci seen taxawaay ci liggéey bu baax a baax. waaw nit ñi moom wax dëgg yàlla seen pas-pas da lay yëm sax. ndax saa su jotee saa su jàppee màggalu poroxaan rek nga gis nit ñi tàmbali di woote di laajte ba ci ba ci yéen kenn ko nekk di laajte kañ la mbalem poroxaan euh, pas-pas bi ci nit ñi àndal nag da ngay mujj sax yéemu ak bëgg gi la ko nit ñi gën a bëgg nga xam ne nit ñi nga xam ne ñoo koy yëgle da ngay dem ba sax di ci am kersa ni nit ñi bëggee liggéey bi loolu mën nga ci firnde ndax boo xoolee ni liggéey bi doxee bi ñu ñëwee ak léegi rek firnde la ci ni mbooloo mi di yokkoo ni mbooloo mi di liggéey pas-pas bi ñu àndal kon loolu wax dëgg yàlla lu rëy la ci noonu tamit ndax woote metti na lool waaye woote neex na waaye woote ñu wuy si la nag loolu tawféex yi suñu borom la. kon nag tawféex ji yàlla defal ndimbal ñu mën a woo nit ñi ci liggéeyal yàlla ndax yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa li rasuli iza daakum li ma yuxyikum loolu rek moom moo nu fi indi saa suñ leen wooyee ci luy dundal seen roox te liggéeyal suñ waa day bokk ci liy dundal roox. waaw ndax euh, tubaale abdin muridin sadiqin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyatin kon xidma moom dafa bokk ci cosaanul yoonu murid loolu tax saa yoo wooyee murid yi leen ci xidma dafay dafa leen di soññ daf leen di ndimbal la ci ñoom sëñ Tuubaa daana wax ne fekke fu ñu may liggéeyal jaral na sol dalli weñ di ko doxe bu mu dagg loolu nag moom la moom la murid yi def seen mu nekk mu nekk seen pas-pas seen diggante ak sëriñ bi sëriñ bi mu nekk gànnaar sax daana daana wax ne euh, képp koo xam ne liggéeyal nga ma yow suñ borom nang ma ko ko nang ma ko fayal te nang ko fegal ayu àddina ak ayu àllaaxira loolu moo tax murid yi saa suñ leen wooyee ci liggéeyal sëñ Tuubaa danañ ci wuy si wuy si goo xamee ne ka leen woo sax dana mujj xam ne lii du moom waaye sëriñ bi rek moo ne ci moo parce que baatinu sëriñ bi moo ne ci mbooloom mi waaw man damay jàpp ne ci sama gëm-gëm mooy liggéeyal sëñ Tuubaa daf maa war man ndax ku ma gis war maan ma ngir jëmmi sëñ Tuubaa lu ku ma gis nuyu ma warmaan ma ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ku ku ma gis yëkkati sa alal jox ma ko ngir jëmmi Sëñ Tuubaa kon bu ñu dee liggéey Sëñ Tuubaa maa ci war a maa ci war a jiitu ndax bu fekkoon njëriñul àddina damay damay wax ne maa ci gën a maa ci gën a kon su ko nit ñi dee liggéey nag ma woo leen ba noppi toog fee di bàyyi leen ñuy léggéey day mel ni kon ñoom ñooy liggéey waaye man maanaam man liggéeyu ma waaye man damaa jàpp ne dama war a liggéey nit ñëpp takk sama ndigg laxasaayu liggéey nit ñëpp di liggéeyee waaw loolu moom daf maa war waaw moom daf maa war ndax ñi fi ñi fi nekk ñëpp man la ñuy dimbale rek ndax maa leen fi woo gannaaw maa leen fi woo nag buñ nekkee ca waaro dama ca war a nekk ak ñoom rek. man Adama An laa tudd. taalibe Cheikh euh, sëñ Cheikh Sarr. voilà ñëwoon ci mbaleen yi Porokhane. Ah. waaw sant ndaxte euh, Porokhane moom bésu soxna jaara la mooy jenn jigéen di am benn bés bi ci àdduna bi képp kuy taalibe wala nga ne sax mën naa ne képp ku di jullit war nga cee indi saw ñaq at mu jot nag ñun waa Kaolack yàlla jagleel ñu ñu nekk ak ku baax sëñ bi jël ko sëñ Mountakha jël ko sas ko mbirum bale bi lu ëpp lu mat fukki ñu war a jóg war cee jiitu waaw ñun waa Passoir ak Kaolack ak li ko wër lépp bu poroxaan gi di jub si des une semaine ñu ñëw bale dëkk bi ratu ko buub lépp ba gan ñi bu ñu ñëwee duñ mën a am benn salte bu leen di fànq. waaw ñu mën a jaamu yàlla màggal soxna si ci jàmm ak salaam ci doole Cheikh Ahmed ba mën a delluwaat ci seen i kër. fierté bu rëy ak yëg-yëg bu rëy xam ne ñoo ngi liggéeyal ko jara liggéey ndaxte fii boo fi ñëwee loo ñàq da koy xeeb loo ñàq rek da koy xeeb da ngay yàkkamtee agsi ba saw ñàq tuuru fi parce que dafa lay leen na ñàq wii di fi tuuru nekkul pertement ñàq la woo xamante nii yaa ngi koy ñàqal ku jara ñàqal koo xamante ni moom moo ñu ñaqaloon démb ba tey jii ñun ñu mën fee teew kon dañuy delloo njukkal rek waaw. Serigne Moustapha Abbas Mbacke yàlla na fi yàgg te am lu ko wér ngeen ñaanal ñu ko Serigne Moutala Mbacke yàlla na ko sama borom yàggal te mu ànd ko wér lool ñun dañoo kontaan rek ñun soxna yi kontaan rek lañ am ndaxte Serigne bi rek lañu am. sëriñ bi lañu am di ko liggéeyal suñu jëmm yi ak suñu deree di sëriñ bi rek moo ci jeex sëriñ bi rek lañu am ñoo ngi sant soxna jaara bu baax naa tey ñaan daal lépp loo xamante ne liggéeyu soxna jaara bu sa la fu mu jógee rek nañ ne soxna yi acca jubli ndax suñ suñu jëmm yi loolu rek lañ ci soxla soxlawuñu leen liggéeyal sëriñ Touba rek lañu bëgg ñun waa kër sëriñ Omar Diop la ñu ngi bokk ci waa kër Cheikh Omar Diop Touba Mbacké léegi nag comme ko yàlla dogal na dañoo bokk ci waa kër Cheikh Omar Diop amuñu lu may waa kër sëriñ Bassirou Mbacké kon sëriñ sëriñ Omar ak sëriñ ba Basiiru Mbàkke benn lañ moo waral fu kàddu gi jógee rek ñun su dañuy noppee xamata lu ñuy def sëriñ Xaadim dama ko naan sa saa yoo jógee ba ni liggéey baa ngi rek ne ma jëw ni aca liggéey ba ñu daal koy defee rek ngeen ko bëggee kon sant rek ñu ngi sant daal di ñaan yal na taxawaay bi yàgg waa rajo bi yal na bi sunu borom saxal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp ñu teewe ko ndigini déwén sa borom defal ñu jàmm sëriñ Moustapha Abbas yal na fi yàgg ñëw pour tey jëmmal bés bi madame la maire nag yebbal ñu ñu indi woon tey li nga xamante ni moom xeeb na ko ndaxte moom moo bëggoon ñëwal boppam ab ngant bu ndaw tax mu ne ñu nañ ñëw teewal ko fi ñu indi woon nag fukk saaku ceeb li nga xamante ni indi nañ ko ak 75 ballon ndox yi nga xamante ni moom lañ indi indaale tamit 50 euh, bale yi nga xamante indi nañ ko indi 20 20 pelle ak ak ak ay rato indi tamit ak ay brouettes yoo xamante ni 5 brouettes yoo xamante ni lépp pour ci wàllu setal ndëkk bi dugg nag ñoo ñëwoon ci ñëwin bi nga xamante comme bi ni ñu ko yebaloon saa su ne Mariama Sarr di ko def wane na fii la bokk ndax taalibe la doon taalibe mu pare ñëw taxaw waat bés bi di fete di waat kóllëre comme ni nga ko doon defee saa su ne euh, ànd ceeg population bi ànd ceeg euh, nit ñi. madal xabiir oh, Amen. ala